man la Yélimane Fall sama turu artiste di messager de la foi sama liggéey tënku ci jaar-jaaru sëriñ bi ak xasaay di euh, màggalu lu fàttaliku bi nag man maay artiste bi nga xam ne maa ñëwoon première édition bi def exposition ca tàmbali ga hmm, daaw maa ngi fi woon ren itam ñëw naa euh, thème bi ni ñu ko waxee mooy développer nan la murit bi développer ci wàllu social ci wàllu économie ak ci wàllu culture man ma jël ci man ma indi ci ñetti sous ci loo ci thème boobu noonu thème principal bi man ma indi ci ñetti sous benn bi ma ni nax ju laa koy oowe benn bi ma ni kunkaati man laa koy tuddee benn bi nekk jaar-jaar Serigne Touba léegi euh, nit ki mënoo ko développer nit ki mënoo ko développer te yaruloo ko ba pare boo ko yaree ba pare it il nga jàngal ko ba pare ndax ñaar yooyu ñooy ànd waaw ñaar yooyu ñooy ànd euh, moo tax lii pàcc bi pàcc bi dafa indi jaar jaaru Sëriñ tubaa indi euh, nax ju xadaayil age nga xam ne ay waxi Sëriñ Tuubaa la yoo xam ni yenn yi ci yar ak la lay indi yenn yi mu indi la ci yeneen xeeti Euh, taxawaay donc jaar-jaar bi moo nekk noonu ci kaw jaar-jaaru Serigne Touba mais tableau yi nekk ci suuf nii yenn yi comme bële na le euh, billaahi faraxtu nasara jéewal yi mooy jeewal dafa am lu fa xew loo xam ni euh, agéographie indiwuñ ko mais archives yi itam indiwuñ ko ndax jeewal am na lu fa xew avant que mu fay sëriñ bi di fa jóge ànd tubaab bi di jëm Ndar mooy bi tubaab bi ñëwee daf ko bëggoon a yóbbu de gré ou de force ndax loolu moo doon mission jël ko par force yóbbu ko ndar mais ci bis boobu noonu le 10 août ba ba ñu ñëwee ni day dem mu ni leen demul mu am genre euh, euh, épreuve de force dafa am ay jëmm yu jóge ci kaw asamaan yor ay ngànnaay di wàcc tubaab bi bi mu ko gisee dafa daw bi tubaab bi dawee moom li mu wax moom Serigne Touba bind ko dafa bind billaahi faraxtu nasaara jéewali wa xayroo xatan bi laa tinaawali bis naka tey ci jawal ji laa tàggoog nasaraan bi kon bu fa yemoon it comme li yi wax mu neex mënoon na fa yem mais dafa ànd ak ñoom parce que mission am du woon loolu mission mooy dem ci géej gi liggéeyal Serigne Touba liggéey liggéeyal suñu borom liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba am tey ndam li mu am ñun ñu ñëw taxaw fii tey dans le calme nga xam ne kenn ñu euh, yor sax micro di wax donc euh, gis nga laa biire mbooleem jullit yi moo gën fetal jihaad mooy tableau bi donc ci naxtu bi la laabiré moo tax euh, ki ko doon installé muy sama benn mbokk taalibe Baye Ali dafa jël dafa bi ñaari tableau yi ñaari tableau yi dafa nekk euh, final ñaari tableau yi moom final la ndax sëriñ bi bi gars yi defee pexe yëpp daaneel ko ci ay taal fu nañ jaarale ko fa pour faat ko amuñu ko mujj dañuy décider nag pour nag ni léegi dañ koy fetal jël ko takk ko ci garab wut ay tireur d'élite teg leen. كويتني عند أجي ولي bismillah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala exposition fii nag tey 21 euh, septembre bi 2018 bi fii nangu la wax Assane Assane Dione moo fi kii ah nangu la wax Assane Dione moo moo moo fii euh, image yi nag ñëw na daaw waaye mooy waral ne waa Kër Sëñ Tuubaa yëpp en portrait gën ku nekk foto boo xam ni euh, waa Sëñ Tuubaa bëggoon ñëpp maanaam Riyal yëpp ñu ngi nii mën def en image photo waaw maanaam 21 septembre 2018 jëm mooy même image ñëwoon na gën a dañ ko gën a yokk maa léegi fii sëñ mag bi la ñii waa kër sëñ bi la bii nag table bi moom. day wane julli gi ñeenti rakk ni mu ni mu tombeek euh, vingt huit lettres alpha kii abajadey nu mu tomb ànd ak julli gi vingt huit ji la julli ñeenti rakk yëpp vingt huit euh, kii la vingt huit action la yoo xam ne mu ànd ak abajada bi waaw ci kaw gàttal daal comme kii yu bëri jotu ñëw yi jotu ñëw lii la ma image yi ak lii waaw